ba nga xamé né li may wax ndigal la ci am ma ngi sant yalla ci ndigal lolu ñu jox ma euh, ndigal lu am solo la dekk bi fim mu ndigal tau, ko fi teg mbar mi ñi taxaw ñi tok lekk fi indi yëpp ndigal ko fi teg yëngatu biñ fi doon def ndigal ko fi kon ma ngi jittal ci nuyo bi suma khalifa suma sëriñ suma mag alaaji Mouhamadul Makki di ñaan yàlla jataay bii ak xen bii fi nga ko bëgg a yóbbu yàlla na nga ko fa yóbbu fi bëgg nga yóbbu ko fa yàlla na ko fa yóbbu waaye maa ngi nuyu rakkam ji sës ci kawam rëkk te du ko rëkk nga xam ne lu alaaji Makkin baax le moo ko defaral te alaaji Makkin bon lewu dara muy xalifa Mouhamadul Muntaxa nga xam ne moo santaane ne nañ ma jox sax te lii may wax moom ci gën a am ndigal gën ma koo xam te ma mag de sama sëriñ de sama kilifa kon maa ngi koy gërëm ci loolu da ko ñaanal yàlla sag bi mu nekk ci kër gi ak tiitar bi mu nekk ci kër gi yal na yàlla yokk ko waaye maa ngi nuyu ñaari kilifa yi sumay ñaari kilifa sumay ñaari mag di samay xarit muy sëriñ Arif Kanji sëñ Adama ak Seydi Basir bii nga xam ne suma xaritu kaw la suma xaritu suuf la may sant yàlla ci loolu bu baax nag waaye di nuyu taalib yi di nuyu bokk yi di nuyu dëkkandoor yi di nuyu gan ak dëkk góor ak jigéen nuyoo bi koo xam ne fàtte naa la rek baal ma yow laa jëkkee kii ñëw taaj seegul sax nuyu naa ko ñam xàndat nuyu naa leen ka toog téye rajoom jàpp ko da déglu maa ngi lay nuyu nuyub jàmm rek di wax asalaamualeykum wa rahmatullah bis bii ñu dajee tey nag muy siyaare tourisme bis la boo xam ne bu yéeme la bis nga ci yàlla Muhammad ku la ko gën a bëgg moo la gën a muus muus alaaji lii ku muus la muus mooy yeew ku la gën a bëgg yonent yàlla Muhammad moo la gën a muus muus baax na de muus lu baax la siyaare bi rey nañ fi ñaar fukki nag wala mu ëpp ko yii wala weer yi ci gannaaw wala semaine yi ci gannaaw wala weer ak dara wala ñaari weer ak dara wala ay weer liñ fi jël ci ay gàtt kenn xamul nu mu toll wëriwuñ benn gàtt jàppuñ kenn tëjuñ kenn rey ñaar fukki nag ci dëkk bi ak lu topp kon pas-pasan fi kon yalla nga lolu dara la du neena te bant yi ñu samp muy mbar mi ak bant yi ngeen gis ak yi ci gannaaw mooy cosaanal dekk bi patrick manu dekk bi wala ci la bok bañ koy gor ñako gor alaajil yu daf leen wax ni bu leen ci diggel lu ngi lu leen naq di muñ leen ko yonent be joxandigal kenn du ci pat kenn du ci dam deret du ci tour kenn du ci dee rasulullaay mu ko garante te bant yi bu ëllëgee yun ci yàlla Muhammad moo koy lay maanaam mooy lay roog bant yi yonent bi mooy ray roog mooy lay roog bant yi te it bant yi mooy poids bi nga xam ne moom la bant bi yor dañ koy sëf ci pouwaaru jëf ca baax ji nga xam ne ñoom ñoo doon sonn di gor bant yi ci ndigalal alaji li alaji li wéeru ci yonent bi jël ndigalam yonent bi wéeru ci yàlla yor ndigalam pouwaaru bant yi dañ koy jëf dama bëgg rek ñu fàttali ko alaji liw tuuti moo tax may indi loolu waaye li ma bëgg wax ci yonent yàlla Muhammad mooy mooy lay róobu bant yi ci waxi alaji liw dama ne bant duñ ci sol yire bant duñ ci sol dàll bant duñ ko togg lekk kenn du fi joge dim Dakar hag ñu ne la lo war nga ne bant bu yonent bi dal lay ruub bant yi na la yaale ruub nak yi nga xamne ñom lañ ci bis bi togg ko ngir ay ganam la yaale mbane yi nga xamne ñom lañ fi taal def ko ay berndel xamul sikki na Seydina Muhammad dana ko lay bis bi amul neen ndax rasulullah mo tax ñu def ben way kat ci ñewenteeg yonent yàlla Muhammad ak mbaaxu yonent yàlla Muhammad ak laa biiram ak mën a mën a yar ak ñeme njabootam ne wal kafu maa bat unsan wala sakaran maa qaadiman xaaba min aybin walam yalumi ne wal kafu ténqal rasulillaahi maa darabat musul dóor unsan jigéen wala sakaran lu caagin góor rasulillaahi musul yëgati loxom bi dóor ko góor dóor jigéen sàkka góor maa qaadiman déet benn mbindam wala bo beugé sa firi rafet nga ma aba musul haybal qadiman benn mbindam min aybin ci jenn hay bal walam yalla mi du ko sax yadd rasulullaay du yadd sax mbindan wala jam ku du yadd noy dóoree mu ngi wane jàppande ak ñewent gi nga xamné amna ko ndax xamné ni mbilif yalla yeb njabotam lañ ci mom lañ bayé ko di borom bis nak mu yalla jilli la daan wax lay wax amna maqama bu ne amna martaba bu ne amna wilaya gu nek te lawtaat la jaar na ci maqaama lawtaat waaye xutb la waaw danaa la wax nag li tax ma wax la ko nim meloon ci alxuraan bariwut ku ko mel su fekkee am na alaaji li mu ne alxuraan dabu dara te ku ko dab doo ko jot te lu dul alxuraan alxuraan lay dab ma ne ko li nga wax dëgg la gëm nañ ko waaye lañ cay déggee mooy yow mi ko wax daboo kenn ci alxuraan alxuraan kese ngay dab te ku la dab ci alxuraan du la jot mën loolu laa diggee ci wax ji alxuraan dabut dara te ku ko dab doo ko jot lu dul alxuraan alxuraan lay dab mu ne alaaji li kon yow daboo lenn lu dul alxuraan dabu la kenn te lu dul alxuraan daboo ko te ku dul yow alxuraan lay dab ci yow kon boo bëgg a waxtaan ci alaaji li bu la neexee sax nga ne alxuraan nee na alxuraan maanaam alxuraan nee alxuraan ngir ni meloon rek ci alxuraan koo xam ne dundam bi yépp ñett ñetti kaamil la saxoon bii daf koy naafila xam sahari xay bii mooy da koy jullee te du ko gis bii daf koy jàng di ko waxam di ubbi kaamil bi di ko xool baat par baat aaya par aaya saar bu jeex mu dugg beneen isib bu jeex mu dugg beneen bii daf koy nafar du ko xool du ko naafila moom la saxoo moom la takko ba joge fi te waxoon naa leen bi mu wottu alquran ba mokal ba ñenn serigne dar yi di kaas ne waaw ki lan mo tax wut xam-xam ndax sebi ci alquran jël alquran am ci mokk na lim ci am dootu ko romb booba la jël alquran jël ko rubon par rubon rubon bu ne mu jang ko ñaar téeméeri yoon loolu boo ko ñaar la bo calculer rubon ci alquran rubon bu ne nga jang ko ñaar so fekki so dalé ci rubo bu jakk bi di dox ak mom ba ci rubo mu mujj ba jang nga ñaati yim ne kamil waye nak ni bëggé alquran ak ñi ñëmé alquran non la ragalé alquran ala jëlu mu ne man duma firi alquran ndax suma ko firé dañ ma ray té ñima ray ci dëgg lañ ma ray waye man mi ñu ci dëgg lañ ma ray ala jëlu mu ne mom du firi dan ndax bu ko dañ ko ray te ñi ko rey ci dëgg lañ ko rey waaye moom mi ñu rey ci dëgg lañ ko rey ñu ne ko loolu nag nga wax ko noonu rek taxaw doy ñi ci commentaire de dañuy laaj rek mu indi ci lu toll ci juróom-ñaari aaya benn bu ne mu am benn firi bu ndaw bum ca def bu xóot fa ma cee njëkk a mooy wal asri saar bu gàtt boobu borom xam-xam yi dañ koy firee ne wal ñu ngi gën ci waxtu tàkkusaan mooy ëpp yi yàllaay gën ci waxtu woowu ndax la tax muy mu ciy gëñ waxtu tàkkusaan lu am barkel la salaatul wusta gi alquran di ji am na ñu mooy mooy julli tàkkusaan lu muy gën ne inna linsaana na ko doomu aadama li fi xusirin mu ngi ci perte illa lasiina ndare gaa ñi nga xam ne amano gëm nañ wa amiloo te ñuy jëlee jëf ya asaaliyaati jëf ju baax وتواصل ني دينكنت بي الحق تي دغ وتواصل ني دينكنت بي صبر تي موني ام ني ني الى لسنا امنو جي موي سيدنا ابو بكر الصديق وعملوا الصالحات جي موي عمر بن الخطاب وتواصل بالحق مع عثمان بن عفان وتواصل بالصبر مع علي بن ابي طالب ني ني القران ني ني والعصر لي كو تخواتي على جي ليوني دي دي والعصر لول تخوت كو واتي كات mu ngi bëgg a wax leeral li tax mu ne moom du firi alxuraan ngeen déglu ko boo jàkk mu ne boo bëggee firi wala asri da ngay jëli walla xad karam naa ba ni aadama ja yàlla teral doomu aadama tiraanga yi yàlla teral doomu aadama indi ci jaaw ji indi ci àddina bi jaaw ji ñuy nooy tiraanga la xiwal la leerug jant bi ak tàngoor yi mu àndal sa xiwal la suuf si ñuy dox xiwal la nawet bi passé ak bi ñuy séentu yëpp xiwal la géej la li ci géej gi xiwal la wét meññantey garab yi ak ker yi ci suuf ku sonn mën a toog noppalu loolu yëpp ay xiwal la yàlla mooy gën ci ne maa ngi gën ci dundab doomu aadama wal ansari ngeen déglu ba jag wal ansari yàlla ne maa ngi gën ci dundab doomu aadama doomu aadama bu juddoo ba bis ba delsi ay baayam ak ay maamam ay najaayam daje wat ko jox ko turu jullit judd na ci cinq yi suba cinq suba jooju mooy ansari ci wax yàlla jëlliw man la wax laay wax judd na ci cinquième suba doomu aadama boobu nag bu demee ba am juróom fukki jàpp juróom benn fukki at mënatuta wax dëgg mënatuta def dëgg romb na juróom fukki jàpp juróom benn fukk bu yëgee bu yëgul àgg na ci cinquième yi ngoon wala si ni door a ñëw bu juddoo ba jox ko turu jullit wat ko nopp ci nodd ci noppam nday jor bi liqaam ci noppam càmmooy bi jox ko turu jullit judd na ci cinquième yi suba bu amee juróom fukki juróom-benn fukki at dundam bi àgg na senkeeri ngoon war na fàttaliku war na bàyyi xel su boobaa nag bu mën wax dëgg mën a delloo si ñim jiitu mën a leen a muñloo mën a tut leen dénk dox ak mbokk mën a tut leen a dénk jaamu yàlla mën a tut leen a dénk liggéey am dundeelu leew mën a tut leen a dénk muñloo seen ak njaboot may jigéen ñi ñu sëy ñu war a jàngi dem jàngi ñu war a liggéey dem liggéey su mën a dénkaane loolu moom doomu aadama boobu te juróom fukki mën na jàpp juróom benn fukk te it mën a tuta wax dëgg su boobaa kat la fii xusrin door a ñëw mooy perte su boobaa lay door a perte ah leen la siina amono sette ja door a ñëw mooy ndare dafa wañeeku nag dem na ba jàpp juróom-ñaar fukki at wala mu ko romb tuuti naa man nag waj na war naa waaj yëfa ngay bëgg a xew de mu wañeeku nag da wax dëgg da def dëgg dootu nangu ku ko fenloo dootu nangu ku ko dugal ci lu du noonu dootu naka nangu ku ko dugal ci politique wala tappale wala ay caaxaan jaamu yàlla ak liggéey yar njabootam lay tal su boobaa nag illal na amono doon a ñëw waamilu saalaati nee na wala xasri lii mooy sababu nusool bi boobu laneen la léegi ba ca topp mooy boo demee ci isa sam su kuwirat ci njëlbeenu saar wi ngay topp succ yi ba ba muy jeexee sëjon ñi jàng xam nañ li may wax fukki sëjon la ay ñaar alaa ji li nee juróom-benn sëjon yi àddina la juróom-benn sëjon yi àllaaxira noonu la firee si isa samsu kuwirat wa isa najumu in kadarat wa isa jibaalu suyirat wa isa asaaru hottilat boo ko toppee ba isaa yi jeex fukk ak ñaar la juróom-benn yi àddina la juróom-benn yi ci des àllaaxira ba ca tegee mooy innaa sa nulqi alayka qawlan saqilan ca yaaw yaa mu samilu yaa yaa musammi luqmi layla ila qalilan nisfahu aw nqus minhu qalilan aw sil alayhi wa rattali alqur'ana tartilan ba ca tegee innaa sanulqi alayka qawlan saqilan qawlan saqilan googu alaji laata ne ne mooy fatihatul kitab ndax yàlla dafa ne innaa naka ñun sanulqi sa sana ñooy sànni alayka ci yow muhammad qawlan saqilan wax ju diis alaji laata ne na innaa sanulqi alayka qawlan saqilan bi muy wàcc jibril da ko andi ci yoon ci yàlla muhammad juróom benni wadjas la juróom bennel wadjas la ak alquran di wacc mo tolok juróom bennel wadjas jibril di jindi al indi alquran bam del si yedd juróom ñaarel wadjas ba ci indi alquran ci la indi fatia muy juróom-ñaari aya tolok juróom-ñaari fan yi du jaxaso du lecc tolok asman juróom-ñaar su juróom-ñaar mu li ci inna naasiata layli ya asada war an waa qilan jabasar wi jeex bi mooy wàccat gannaaw boo xamee ni inna sunul xaq alayka xawlan saqilan wàcc na li des ci saari ba mooy wàccat diggante bi juróom-ñetti at la waa léegi ki la mën a wax li inna sunul xaq na la juróom-benn wajaas la juróom-ñaari li wajaas ci alquran mooy fatiha li juróom ñaar aaya tolloog bisi juróom-ñaar du jaxasoo du lëj xasamaan juróom-ñaar suuf juróom-ñaar ne la inna naasiata ba saar wi jeex la ko fa ba saar wi jeex bi mooy wàccat juróom-ñetti at la ci diggante bi waaye bu ci déggee ne juróom-ñetti at yooyu alquran wàccut déedéet alquran nag doon wàcc laneen la wax inna naasiata ji la wax ba ci inna laa xafurun rahimun ja juróom-ñetti at jibril toog na ko yàlla door koy jox ndigal mu indi jeexalu mu indi saar wi mottali ko dalee ci inna naasiata ba saar wi jeex xamee ni boobu borom mi naa fi da alquran ko beneen ba ca tegee mooy saala saa ilu saar bi mu ne xam ngeen saala saa ilu lu ko taxawaat ci ñu ne ko déedéet mu ne yonent bi dafa jékki benn suur rek yonent dal di jot ndigal ci yalla genn rek dal di wo saaba yi ala jeli way wax de saaba yi genn dajé muna len ana al yumna bi talib ñu ko al ngi ni yonent bi ko aliyu yuba aliyu jege ko mu ngëp ci loxo ndey joram bi yëgati ne yalla neena al yumna bi talib mi ku ko bëgg yaay ñak aljana ku ko bañ yaay ñak safara na yalla loxo bi bay gaay xolanti mu yuutaa loxo bi yëgati waat yalla neena al yin mi ku ko bëgg yaay ñak aljana ku ko bañ yaay ñak safara na yalax lox bi baye defaat ko ba muy ñett yoon ñu tassaro yenn saaba yi nak nga xamne affaire bi jaaxal na len ñi commentaire mbir mi ñi naan wa Muhammad khana Bok gi mbokk ak Alioune moo tax mu wax li ndax baye mak baye Alioune ñoo bokk ndey ak baye ci Abdi manaf ko jur ci Abdoulaye jur ñom ñaar ñu bokk ndey ak baye Abdi Mutalib da sen pap wala ak mbokk tax mu wax wala bok nafsu bakanam la wax ben way bu pank fekk sahaba yi mu ñu commentaire la ñuy commentaire moom ca la ànd mu ne délégué leen ma ma laaj ko yonent bi ñu yónni mu laaj yonent bi ba mu demee na yoo yónni yàlla Mahamad fay ko ne ko marhaban bisimilah mu dugg dal ci toog mu ne ko saaba yee ma yónni de ñenn ñi du ñëpp dañoo wax ne li nga wax ci mbooloo mi ne yàlla nee na ku bëgg aliyun dem ajjana yaay njëkk ajjana ku bañ aliyun yaay njëkk safara dañuy laajte ñoom sa naf su bakkan laam yaa ko wax ci loola neex wala da ko wax ngir li nga bokk ak àll yi wala da ko wax ngir loo bëgg Muhammad gi xool ne ko mayen ci xaanil hawaa man dama wax ci sama naf sama kan li yàlla wax laa leen wax bu ngeen gëmee baax na bu ngeen gëmul baax na ji génn tànkam day jol bi bi muy génn ci tëx bi mu war a génn néeg bi tànkam caamoy bi génn gul jibril na cëpp ci yonent yàlla Muhammad tàggee waa ji yonent yàlla Muhammad ne ko waa ji fi génnee faatu na Muhammad ne ko ah waa ji léegi la fi jógee ni mu ne faatu na dem na safara loolu la muy jinj mooy commentaire baaxut am na loo xam ne dees na ko commentaire waaye am na loo deesu ko commentaire commentaire yu ci bëri ay dumaa ci tege commentaire yu bëree bëri ay dumaa ciy tege du lépp la ñuy commentaire am na loo nag duñ ko bàyyi mu jàll dañ koy commentaire waaye ñu bàyyi ci xel gis nga saabu boobu li ko dal wala waa jooju la ko dal ala jëliw ne na saala saayilun looloo ko tax a ba ca tegee ci alquran mooy ilayhi yasadu kallimu wa wala amul salihan yarfu ala laata nena ilahi ilayhi ba tab yasxadu ñett lay firi ñett nena nee baat bi ci bopam mënoo ko firi ci arab monoko ko firi ci français mënoo ko firi ci anglais wolof rek nga ko mën firi wonen lang wo ko firi fa koy abal firi ci nuñ ko mën xamé waye baat bi ñett lay firi waaw ilahi yasxadu kallimu tayyib loolu la ci yalla wax mo de لا إله إلا الله مملي جنجي gis nga jëf yi nit ñi nit ñi da def sarax yi ñi def julli yi jàng alxuraan yi woor koor yi ak màkk yi ak dox mbokk yi ak mayante tiyabo yi loolu yëpp buñ ko jëfee ba pare malaayika mooy ñëw tàllal ay mbaggam jëf ji baax ji yéeg ci mu naaw ak moom jëm piyeb yàlla ma ba mu des laa ilaha illallah muhammadu rasulullah baat boobu boo ko waxee baat bi mooy ñettul boppam dem malaayika attuna ko du ko yóbbu ala ji loolu wax mu ne laa ilaha illallah malaayka attanut moo tax alxuraan ne yasxadu dana ñatu ilay jëm ci yàlla lan kalimu tayibu baat bu tey bii di laa ilaha illallah wala amul saalihu jëf yu baax yi nag kooku yar foo malaayka yi ñëw yana ko yóbbu kooku borom mënta firi alxuraan beneen aaya ba moo de alaaji laata dafa nekk funjuñ fekkante faa góor gu baax sëñ Babacar Coy mooy sañ ci faa seen ca Gàmbi moo daan tafsiral alaaji laate alxuraan góor gu mën alxuraan xam xatte yi xam rumuus yi xam maani yi xam xam ci lu bare bare bare bari féete mag alaaji laat ba war koo tafsiral alxuraan tafsir bu doy waar ndax alaaji liw nee na man alxuraan dara la ci lim digle maa ko ko gën a def lim tere maa ko ko gën a ba mooy yàlla laa gën a ragal ci dee tooñ laa gën a ragal ci dem kaso alaaji laata ma wax mu ne mooy yàlla laa gën a ragal ci dee tooñ laa gën a ragal ci dem kaso ci aarif laa boole sama bopp ku ci boole calaa ku mu ci boole calaa ma ne ko génnee ci ku ci bokk boole ci ku ci bokk de moo gën génnee ci ku ci bokk diwaanu aarif yi ne billaay boole ci ku ca bokkut dara du xew ndax ñoom dañ xam ne waa ji bokkut ci ñun sa xiir ak sa bëgg wala loo bëgg ci moom moo tax nga boole ko ci gaa yi waaye ñoom xam nañ ña ca bokk ak ña ca bokkul kon boole ci ku ca bokk bu ku ca bokkut moo gën foo génnee ci ku bokk diwaanu laari sunu bilaay boo ci bëggee génnee ku ca bokk ñoom ñëppay mer jog te bu ñëpp meree jog nga am problème ndax ñoom neexuñ jërët danaa de wax ne lambe ali fii ne bilaay seetaan taxaw seetaan rek ngay def ñibee daal yee dagg ak yiree xar lamb jooju boo ci amee combat foo jëm seetaan rek taxaw seetaan ba sonn rek wañeeku na yaa ngi ñibi ñibee daal yee dagg ak yiree waaw lamb jooj boo ci amee combat foo jëm waaw mu ngoo mu ne caari fi boole sama bopp suñ ma ca boole calaa suñ ma ci boolewut calaa a ah, man de calaa ko boole yéen it ca ngeen ko boole sëñ Babacar Thiaye nekk ak alaaji laata ci Foundiougne ci kër góor gu ñuy wax Lamine Ndiaye mu war koo tafsiral alquran ñu dal suratul fatihatul kitab bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba ci wala daal lii na ñu tafsir ba mu jeex ñu teg ñu sóoru baqara alif laam mim saalika ba saaru baqara jeex ñu teg ñu jógee ca jam sóorutum ali imran jeex ñu dugg nisaa yi yi jeex ñu dugg maayida maayida jeex ñu dugg lanham lanham jeex ñu dugg laxraaf laxraaf jeex ñu dugg lanfaal lanfaal jeex ñu dugg tawba boo jeexalee tawba comme suuf nga jëm yunus kay daanu boo jeexalee yunus yaa ngi dem xóot boo jeexalee xóot yaa ngi dem yusufa boo jeexalee Yuusufa yaa ngi dem Rahdi boo jeexalee Rahdi dem Ibrahima boo jeexalee Ibrahima dem Hijri boo jeexalee Hijri dem Nahli boo àggee Nahli nag seen tafsir bi Nahli la yam ci aay bi ñee walaa takuunu kallati naqadat xaslahaa min ba'di quwwatin ankaasan ba ñu àggee foofu alaaji laate kaamil bi mu yoree nga xam ne ci lay dégloo tafsir ndax moom la ñuy tafsiral xattu la amul saraa Babacar Thiel tafsiru Jalaalayni la yor boo xam ne tafsir Jalaalayni ñiy tafsir ak ñii déglu tafsir miin nañ ko fii ci suñu réew mi moo ci moom la ñuy gën di tafsiree wala dañ ci la jël référence lu bëree baree baree baaw Babacar Thiaw boobu la doon tafsiree góor gi yore xatt bi waaye bi ñu àggee ci aay bi wala takoonoo kalati naqarat xasa min badi quwatin ñu taxaw Babacar Thiaw taxaw diir bu yàgg waxut Alaaji Laata toog da ko déglu ndax moom la ñuy tafsiral mu wane yar ak teggiin Babacar Thiaw di liir Alaaji na porte di ko déglu ba mu yàgg Munika ko fa melni ni benn dof bu jigen bu nekkon mak tuduri tata mom la alquran da wax da dan xeye hecc gonté takarti melokan wo mu don jëfoo nak lay moytandikuloo mu'minone yi ñi dugg ci dairatul iman pour seen jëf ya bax yi baña mujj fofu jëf ju bax boko ko jëfee ba mu noppi koy protest man jabil la alquran wax ku indi man jabil hasanati nag tak ku def hasanatun pour mu jëriñ la dang ko li ngay yobbu Tamba nak man na dem ba ca kanam dara dab la jël ko wala nga fàtte jël ko wala sàcc ruux la jël ko waye fi bàggu Tamba du li jëriñ comme fa da njëriñam ne mu ne ko dafa melni ni dof bu nekkon mak da dof bu jigen tuddur yi tata mom la alcorane da wax Babacar Coy si xool nga ne ko dang ko gis ci tafsir mu ne ko déedéet yalla mako fortal rek Babacar Coy ne ko ah ne ko ah, mu muub bi sen tafsir ba ba tay foofu la yam ba tey ci treize mai deux mille vingt trois tafsir boobu àggul waaw alxuraanam leneen la bi àla ji lay naatu daf ma wax ne ma xaasiyatu bintu masaayim soxna si firawna alaaji laa tàkk wax ne ko xaasiyatu bintu masaayim bi muy dugg ci kër firawna yàllaa ko fa dugal lam ca namoon mooy génn ak ci yàlla Moussa ëllëg bu fa agsee jaaree ci loxoom waaye namutoon mu nekk soxna si na alaaj laay ne ma gisuma ko ci téere waaye ak yenu maana gisuma ko ci téere waaye ak yenu maana ci alxuraanam jooju manin mi moon alxuraan ci la bind nag xatmu alxuraan bi xam nga alaaji li bind nag xatmu alxuraan waaye ba mu koy bindat dafa am sabab mënuñ koy fay de nee na xatmu alxuraan yi ma jot a liir dajalu ma waaye bari na kan ma alxuraan yi Lir liir ëlliwaat man bari na dajaluma de way bari na way lima metti moy yima lire yeb gisuma ci fuñ tudd ni ko ñuul lu xew te ñun bu de alquran man nañ ko ñing koy firi ñing koy jang deg nañ maanaay ñi ngi jëfé atay top nañ ko ni ko yàlla waxee te xam mu alxuraan yi amul ci benn bu ni ko ñuul lu xew mbam gatt na way ci gi la lol jaral ko mu dem ba mak tim xabru bi ñaan ko ndigal ne dama bëgg nga may ma mu bind xal xatmu alquran yent yalla Muhammad jox ko loxo ne ko may na la bo demé nga bind xatmu alquran mu ñew tok bind xatmu alquran tudd ci ni ku ñuul allahumma salli wa sawadina safiyaka muhammadin masxari lu ko nori arsika tudd na ci nit ka ñuul ci xatmu alxuraan bi te lolu sel bi mu def ci xatmu alxuraan rek tax mu def ak xam gum xam nit ku ñuul bi moy dem fa cheikh tidiane dafa am benn benn koo xam ne nuñ koy tuddee ti am na nuñ koy tuddee ci tubaab dañ koo booleeg góor gi pour mu surveiller ko ci biir avion bi la ko laaj ne ko góor gi ah espagnol jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ saa mu ne ko waaw góor gi ndax yow yaay xutba samaan bi góor gi ree ne ko ah, waxuma la ko yow de yow de waxuma la maay xutba samaan waaye li ma wóor mooy nit ki ñuul maa maa jiite seen délégation li la ko wax te boobu mu ngi jëm Fass Cheikh Tidiane mu ne ko nit ku ñuul man ma jité sen délégation ji lettre ni la melon ci alcorane te alcorane moy lettre bi nga xamne yalla julli ñepp la ko adressé gis nga yalla bu bëgge waxtaan ak yow aram ne na fansur li haalik maqaamuka xendalaay xaysu aqamak bo bëgge xam sa dayo ak sa taxaway ci yàlla xoolal yaay kam ci nga toll ci li nga ne rek sa hal fim toll ci ngay xam yaay kam fansur li halik maqaamaka indallahi haysu aqaamaka fi nga ne mooy sa place yalla yalla bu beugé waxtaan ak yow dalay jangalo alquran xanaa xamone ñi takko jang alquran yalla ngay waxtaan ak ñom waaw bu beugé waxtaan ak yow dalay jangalo alquran bu la beugé may dalay xir ci ñaan bu la beugé xagn dalay tayallo bu beugé nga jégé ko dalay xir ci jamu yalla bu beugé nga sori ko mu xir la ci adina bu la beugé dalay xir ci dox ak bok bu la beugé jibal jéggal dalay xir ci tuub bu bëggé nga jëgë yonent bi mu xir la ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam non la mbir yi tëddee rayaat yi di ñu yëf ci non lay doxé lén lu né su la ko bëggé jox fa la ci ci bu la bëggé duma fa lay moy lo yalla bu ngeen dajé mu xam fu ngëp parce que nee na rabbuka bi salaami lil abidi wax ko sax sanni daf ko wax ba paré ni ci yalla du togn benn jam waaye mom mom sabab mom mom carton mom mom dimbal lu ko neex def bu la bëggé duma dalay moy lo yalla bu ko la layoon xeey ko dalay bàyyiloo ko la layoon xeey ko dalay bàyyiloo fen li may tëjee nag mooy alaaji laat martaba yi yëpp mu dafa am kilifa alaaji laat alaaji mandaw muy serignam waye dama né serign ci bëri nañ waye bokkuñ taalibi yi bëri waye bokkuñ amna na bo boo ci serignam dafa ñu ne ko ci serign am na taalibe boo xam ne la ko yóbbu ci sëriñam dafa listixaarlu ñu ne ko diway sëriñam am na taalibe boo xam ne li ko booleeg sëriñ bi sëriñ bi daf ko jàngal mu gis lu ko doy ci sëriñ bi mu jàpp ci yem ci am na loo xam ne taalibe bi li tax mu topp sëriñ bi nit ñaa fa xaw ci am na taalibe boo xam ne li tax mu ànd sëriñ bi kilifaa ko fa yebal waaye taalibe boo xam ne yéen ci yàlla Muhammad moo ngëpp ci loxoom xamat ko ba ci yow ne la kii sa taalibe yow yaay sëriñu kii ëliwaat rek ko kaam ne kenn laa ma alaaji li artal fi sëriñ dañam ak taalibe wala fi taalibe fi sëriñ dañam ak taalibe taalibe mu mën a doon boo la ngaa moo ci sëriñ ngeen ànd yéen ñaar ba mu yëgati sa loxo teg ceeg ci loxo yéen ci yàlla Mahamadu wàccoo naa ak yow taalibe bu mën a doon ngeen ànd ci yàlla ngeen dem ba mu yàgg moom sëriñ bi mu jël sa taalibe bi yow yow yow mu jël sa loxo yow taalibe bi teg ci loxo yéen ci yàlla Mahamadu wàccoo naa yow kat yow taalibe bi sëriñ bi wàccoo naa ak yow waa léegi foofu la sëriñ mën a yem ak taalibi foofu laa laa joo man daw départ rek ëlliwaat fu njëm fi sëriñ war a yem taalibi ñoom ñaar fa lañ départ loolu kéemaan la de nit ñi seetlu wuñ ko nag bàyyi wuñ ci xel ndax bi muy wuti sëriñ yonent yàlla Muhammad moo ko feeñu ne ko demal wuti sëriñ waaye léegi ki gis yonent yàlla Muhammad da wax ak moom kooku lan lay doyee sëriñ ki gis yonent yàlla Muhammad ba pare kuy wut sëriñ bëgg a gis yonent yàlla Muhammad a tax wala la la gënal ci sëriñ bi nga topp mooy boo ko noon boo ko yóbboon ci ruq laaj ko te xol bi fekk xol bi set wecc wan ma yonent yàlla Muhammad la lay wax waaye ki nga xam ne sa taalibe la te gis na yonent yàlla Muhammad gisaat ko gisaat ko gisaat ko door ñëw ci yow door nekk sa taalibe fi ta sëriñ war a yem ak taalibe ngeen déparé fi yéen ñaar ko ak taalibe yi moo tax sañu woon ndaw nag su ma la gisee xam ne gis naa nit kon yalla nañu yalla dimbalé ta ba ngay gudd ta amna na yu dess assalamu alaykum warahmatullah lila ya ujjawan zila wani